horoscope du jour. Euh, doxalal. jërëjëf jërëjëf àll comme ni ñu koy faral di defee saa su ne ci waxtu wi tey nag di altine yemb ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci atu ñaari junni fukk ak juróom-ñeent. dégg waaw ñu koy def euh, sunu horoscope bi nag ci kàllamay koccu pàcc pàccal ko ci fukki euh, signe ak ñaar ñu koy doone rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bélier yi. bélier yi nag xam nga ñoom ñoo judd diggante 21 mars jàpp 20 avril mu ne ñoom ci seen wàllu wër gi yaram dañuy nekk di ñi nga xam ne baax na ñuy déglu musique kooku dafa nekk loo xam ne lu am solo lay doon waaw di déglu sound waaw ça adoucit les mœurs voilà ça adoucit les mœurs et puis des fois aussi ngay seetaan ngeen vidéo lu ci mel ni xeex bi ñu doon seetaan sànq xam nga yaay genre xeet yooyu dafa nekk loo xam ne maanaam luy jëm ci wàllu stress daf koy génne donc loolu aussi dafa nekk li nga xam ne waaw nee na c'est bon pour le moral dafa baax ci moral bi dafa jax également ci ci ci vitalité bi du ci am indi ay conséquences donc loolu dafa nekk loo xam ne lu gën lay doon ci wàllu liggéey ba léegi bélier yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne euh, jaluwul ñuy jéem a ennuyer ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ak ñoom li ñu mën a def ndof mooy la nga xam ne mooy seen wareef nañ ko def li des ñu bàyyi ci loxo yàlla mais nit mu mënoo def lépp donc ci wàll wii sentimental nag ñoom dañu nekk nii nga xam ne euh, ñu ci gën a bëri dañu am li ñuy wax maanaam une grande puissance de séduction maanaam di di di di fexe nu leen nu ñu amee cofeel ci ñoom baax na loolu dafa nekk li nga xam ne bu ñu ko jafee tey dinañ ci am li ñu ci bëgg kon déjà loolu dafa nekk loo xam ne euh, lu baax lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, taureau yi mun ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne euh, tey ci seen jëm bopp dañuy am nit ñoo xam ne d'habitude seen bëgg-bëgg wala nit ñi gisee daal day dem ba benn jamono affaire ji dafay xaw a sooxandi loolu nag nekk na li nga xam ne du yàq dara ci seen euh, projet sentimentaux yi nga xam ne ñu ngi am pour mun a dugg ci wàllu mbëggeel yu demee noonu ci wàllu wér gu nag bu ñu xoolee tuuti euh, al xam nga nit ki toog ci sa kër yow kese tout le temps tout le temps dafa dem ba baaxul baax na des fois ngay xaw a bouger génn dem def tuuti sport ak yu demee noonu daal nee na recommandé nañ ko tey laari éviter d'être casanier éviter d'être loolu nekk li nga xam ne baax na donc ndey yaa ngeen bàyyi si xel bu baax ci wàllu liggéey également ci seen activité professionnel euh, fi mu nekk nii nag li Mayte doon wax sànq rek fatigue soudaine boobu nee na jarul ngeen di creuser di sonal seen méninges yi ak seen neurones yi parce que dafay nekk loo xam ne daf leen di ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jumeaux yi mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ci wàllu wér-gu-yaram euh, nañ seen wàllu alimentation laaj mi ngi koy wax sànq nit ki da nga war a lekk sainement lekk-lekkin goo xam ne doo nekk di pata wala ngay am yenn affaire yi nga xam ne di naan yenn garab yoo xam ne da ngay nelaw lu bëri ba pare di di donc dèjà loolu na ngeen si bàyyi xel bu baax ci wàllu liggéey it contact yi nga xam ne da ngeen koy am tey tey mu nekk ay échange maanaam weccoo yu am solo yoo xam ne euh, tey jii ci wàllu woowee dina la mën a amal ndam li nga xam ne da ngeen si bëgg ngeen am ko ci ci wàllu amul nag muy wàllu wi sentimental bi nee na yéen ci seen jëm bopp di ngeen trouver terrain gaaw euh, pour mën a résoudre problème boo xam ne amoon ngeen ko ci wàllu wi sentimental ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi muy wax ak célibataires yi ne leen ñeen célibataires yi na ngeen def attentio bu baax ci li nga xam ne noonu ngeen di doxalee wala noonu ngeen di def ci biir loolu nag am na opportunité de rencontre yu bari yoo xam ne taxaw na ci seen kanam euh, maanaam tase yu bees ak xame yu bees ci biir loolu nag mu ne ci wàllu wér-gu-yaram bi yéen da ngeen di nekk ni nga xam ne da ngeen éviter lépp lu wàllu fatigue maanaam coono gu dajaloo muy coono doole nag euh, coono xel ak coono euh, yaram donc mu ne it ci wàllu liggéey yéen ñi nga xam ne yàlla nii cancer yi da ngeen nekk ñi nga xam ne ah seen compte yi war ngeen koo dugal xaalis ah loolu xam naa nag baax na de. baax na trop nee na waaw am na solo moom tàrkal na loolu am carte poste cash rek naa ah, ah, boobu baax na boobu waaw boobu baax na ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy lion yi lion yi nag ñoom dañu wax ne ci seen wàllu liggéey dañu nekk ñi nga xam ne nee na àll yéen lion yaa ngeen ci bonne direction maanaam yoon wi ngeen jaar ni yoon wu mucc ayib la baax na ba nga xam ne it même bu dee ne da ngeen am ay projet aussi yéen seen njëba boo leen ci taxawee yàlla mën a leen si jàppale ba ngeen am li ngeen ci bëgg mu ne ci wàllu liggéey euh, wàllu santé da ngeen nekk ni nga xam ne baax na ngeen def benn pause maanaam benn taxaw seetlu noppalu tuuti pour mun a départal départ ba loolu day tax ba ñuy feebar boobu ñuy wax stress day génn ci seen bopp mu ne lion yi ba léegi ci wàllu wi sentimental ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bëgguñu di wax ki ñuy bëgganteel wax ko dara loo xam ne da koy da koy da da koy gêné wala da koy français moo tax ci biir loolu dañuy hésité àll bu dee lion yu góor yi lion yi nañ hésité di wax lion yi seen doute maanaam xel ñaar yi ñu am ci ñoom. Hmm. wóorul quoi. Hmm. xam nga nikki ki mën nga balaa mbëkkante am. waaw et puis ki mën nga ko français sax. xam nga Maïté nit ki ku dem ba. Lyon ak Lyon moom. ba xam seen combat du mën a neex. pourtant Lyon bi nag. ak a mooy neex pourtant nag Lyon yi ak a ñëw mën a fàddaate. waaw Lyon moom waaw wax nga dëgg de yéen. Lyon yi ak a ñëw féroce. te sax yow seen férocité sax mënoo koo xam. ñu la zi. doy waar lañ euh, ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne ñoom vierge yi dañu nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu santé ñoom bu ñu gaspiller. wala bu ñu yàq bu ñu yàq seen doole boog ci ay affaire yu ñàkk fayda quoi yoo xam na amul bopp amul genn euh, ci wàllu liggéey également ay rivalité maanaam wujje mun na dox ci seen diggante ñoom ak ñi ñuy liggéeyal jaru ko jaru ko oh. ku nekk ak sa place ku nekk ak sa wërsëg ah ku nekk ak li la indi nekk li nga war a def euh, voilà quoi donc euh, place àll na ko àll coach gère ko quoi avant àll am na ñu fi toogoon tey àll toog na fi suba daf fiy jógee ah, keneen toog fi donc kon voilà donc euh, boo xalaatee ne yow avant nga fi ñëw am na ku fi nekkoon ah. nga laaj ana kooku ni saa neex waxoon booy bi doon jaay yamba bi ne waa yamba bi ñuy jaay ki fi newoon moom anamu mu moom ngay daa laajte <laughs> daa laaj ki fi newoon ba mo anam moom anam waaw donc kon déjà loolu voilà donc nañu bàyyi xel ci loolu ñu ñu xool baa xam ne àdduna amul solo nit ku nekk ak sa wërsëg ci li nga war a am ju vierge yi ba léegi ñu ñëw ci wàllu amul muy xeetu wii sentimental nee na ñoom de dañoo nekk ñi nga xam ne seen xol yi dañ koo war a jël laaj yi ñi nga xam ne ñooy vierge yi ñoom dañ koo war a jël mayte donc moo tax ci biir loolu il faudra vierge yi ñu bàyyi xel ci loolu bu fekkee am na ku ñuy bëgganteel am naa yaakaar ne seen xol boobu dinañ ko jël ñu dem ci ñi nga xam ne waaw loolu lu tarkaal la ñu dem ci ñi nga xam <laughs> waaw <laughs> ñu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy balance yi balance yi nag bu ñu xoolee seen wii sentimental ñoom dañu nekk ni nga xam ne nañ bañ a nekk sur la défensive de xam nga léegi-léeg nga def njombe goo xam ne da ngay dem ba tiit taxaw mooy comme ndaw si gisoon message bi ñu envoyé woon jëkkër ji mu woo jë fekk jëkkër ji di arroser fleurs yi mu won ko téléphone bi ne ko am nga fi message mais boo arrosé ba pare après nga ñëw ñu lijjanti ko waa ji dafa xëy suba di arrosé ba jant so inondé inondé foofu yëpp dafa inondé moom ñi dugul de kon waa ji deful jàmm non deful jàmm moom bi ñu ko mais comme loxo yi tooy te ndaw si ne ko boo paree nga ñëw moom parewul fa la yéen. jigéen jooj de góor yabul jigéen du fontoo. ah moom boo jubul xa boo jubul da ngay lem. Ah, boo jubul. léegi nag mu ne ci biir loolu nag nekk na loo xam ne ah il faut pas nga nekk sur la défensive nga bàyyi si xel bu baax a baax léegi wax na ci waa ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, célibataires yi nañ jël benn recul bu ndaw pour gën a mun a méditer gën a mën a préparer seen yoon donc déjà loolu ñu bàyyi si xel bu baax a baax ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi. mu ne ñoom dañuy nekk ne ñi nga xam ne tey day dafa nekk bés boo xam ne wàllu feebar gaa mun ngeen ko bañ a am mun ngeen bañ a am it ay problème yu garaaw yoo xam ne daf leen ni dal ci biir loolu tamit ci wàllu liggéey ngeen nekk ni ñi nga xam ne war ngeen def benn pause sur le plan professionnel dem tukki xool affaire yu demee noonu bëgg ngeen ko nag mais fonction bi ngeen nekk maanaam li ngeen di liggéey mënul nekk kon nag vous êtes toog benn place wala ngeen toog rek muñ euh, ñi nga xam ne nag moom mooy scorpion yi ba léegi ci wii sentimental mayte nee na ah da ngeen nekk ci yoon woo xam ne xam nga boo leen demee lune de miel xam nga lune de miel mooy genre xeetu barrage jama ak manantali xam nga foofu daa am courant léegi nag mën a ñooñu nekk na ñi nga xam ah waaw barrage de Falémé de Falémé dégg nga <laughs> waaw géographie tamit histoire géographie tamit pour lan tamit histoire géographie mais laal dafa garaaw de wax na dëgg de. maa mënoon jàng fale be donc déjà loolu. loolu nañ ci nañ ci bàyyi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu nekkoon ci euh, scorpion yi ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi mu ne ñoom sagittaire yi dañu nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu santé li nga xam ne moo ci gën a fës mooy ñoom amuñu benn problème lu dul xanaa euh, di naan ndox mu bari ndox mu bëri àll ku koy naan doo tawat doo wàcc lal doo feebar. ndox nguur waaye di nga tuur ndox lu bëri de. tuur ndox mu bëree gën wàcc lal da nga éliminé da nga naan éliminé éliminé. tuur laal moo gën wàcc lal. wàcc lal baaxul. boo wàccee lal nga lal ci suuf. booy lalal suuf doo doo ko tëdd nelaw nag jigéen ñi bu wàcc lal amee yéen yaa leen di fexe nu mu yéegaatee kaw la. wallaay dëgg la indi leen jàmm rek waaye eh, say soxla indi leen jàmm waay bàyyi débat bi bàyyi débat bi. bi duñ ko bàyyi de. moom na bàyyi débat boo xoolee ah, ba xool xam ne wàcc lal la nga jël sa décision. damay lal wàcc lal arrangé wul kenn bàyyi leen tappale yi ngeen nekkee bàyyi leen tappale yi ngeen nekkee loolu nag mu nekk li nga xam ne kon wàcc lal woowee naan leen ndox mu bëri boo leen bañee wàcc lal mu ne sur le plan professionnel yéen seen moom na ngeen éviter euh, di fréquenter seen collègues yi gannaaw liggéey bi parce que day nekk loo xam ne ay jëw daf si am ak ay def ay clan ay sew sew ay te loolu wa <laughs> déggal may de déggal laa ji te loolu baaxul léegi mun ne nag ci wàllu euh, mbëggeel mu ne seen intuition sixième sens maanaam seen njort mooy def na yéen ci seen jëm bopp dingeen xam nan ngeen di doxalee ba ngeen mën a am intimité intimité comme ni may faral di wax rek àll mooy barrage de Jama et de Manantali day am courant donc loolu dafay nekk ñoom ñaari courant yu daje moom dafa nekk loo xam ne lu tarkaale lay doon léegi nag ci biir loolu mu ne escapade boo xam ne mun ngeen ko def nag génn dem feneen xam nga nekk ci benn fenn rek tout le temps tout le temps bu yàggee dootul neex il faut des fois ngeen di changer di di kii kii ci kii yeeg kii kii dafay kii dafay kii. loolu dafa baax gis nga des fois sax da nekk ak nit ki mu dem ba foog ne mënoo ko bàyyi di la son da nga koy bàyyi dem seeti moroomam. bu ko defee mu xam ne ah laaj bu dugg ci gaam boobu bàyyil foofu mu sedd loolu ay wow loolu bu dugg ci loolu loolu baaxul. kooku damay dem nga def miim del alam del dem ñëwaat dem ñëwaat. miim del alam del ah baax na. baax na nañ jàll ci capricorne yi laaj loolu boo koy reyee di nga fande de capricorne yi da ngay font laa mag yàgg ci dëkk bi am expérience dugg ci loolu bàyyi rek bu ñu nee bàyyi man du ma bàyyi. waaw <laughs> da ngay rek waa baax na euh, ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi santé ci wàllu wër gi yaram ñoom dañu nekk ñi nga xam ne nañ éviter abus de nourriture maanaam foqale bënn la mm. kooku doxul. foqale nit du foqale nit du bënn le donc déjà daf lay indil ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu professionnel da nekk ni nga xam ne yenn atu professionnel yi nga xam ne da ngeen ko am dina leen mun a jàppale ba dina leen daal day leen gën a kon di ñëw di liggéey si muy baax ci yéen ci ngeen nekk am difficulté rek maanaam tuuti jafe-jafe yoo xam ne daal war ngeen koo jéggi mais loolu dafay nekk li nga xam ne boo leen ci waxtaanee rek wala yow si jëmboo sax nga dem ba xam ne yaa ngi juum nga dellu ginnaaw dafay nekk loo xam ne luy baax lay dem ñu dem bi muy verseau yi ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ci wàllu santé dañuy gis ne lépp li nga xam ne ñu ngi ko bëgg wala mu nekk loo xam ne dañ koy dox dafay nekk loo xam ne lu leen ni jàppale lay doon ba ci seen santé du ñu benn stress ci wàllu liggéey aussi dañuy nekk nit nga xam ne dina am changement yu mag yu yaatu yoo xam ne ñu ngi leen ni xaar donc nañu préparé pour mun a jóge àll ci benn façon liggéey dem ci beneen liggéey loolu dafay nekk loo xam ne ngëneel lay doon ci ñoom ci wàllu vie sentimentale di xeetu amul mu ne ñoom dañ nekk yi nga xam ne am na ci benn ambiance boo xam ne dafa sedd lool xam nga ay couple jëkkër ak jabar wala farak kii mbir mi warul di sedd quoi sedd baaxul donc déjà loolu bu fekkee dafa am ambiance froide boobu dafay nekk li nga xam ne dafay indi ay yàqu-yàqu moo tax ci biir loolu daal il faudra ngeen xoolaat bu a a baax doxalin bi nga xam ne da nga daal la hmm. ah, ñu moom dem de ñu ne leen dem leen ñu leen nga us moom yàgg nañ ko wax gars yi aal ah, xam na ci dara dañ ko us ba ba mun naaw. waay cuukeel bi feeñ. maa ngi jé maa ngi jégalu. Ah, ma loolu de. maa ngi euh, ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy si kan déggal dégg déggal Cheikh Faye xam nga li xam nga mi ngi mi ngi may provoqué. xam mi ngi may provoqué booy. laa di nee na ma naa ko baal baal naa. mais pas la provocation. non mais attends Cheikh ah, dama leen di jël à témoin rek. mi ngi may provoqué. booy baa may provoqué de. baal ko wax leen ko. waaw bàyyi jàmbur. ah booy moom xeetu la saami sax daf ko war a dem laxasi su booy bi la sami da ngay waar kilim bi bu ci uppee day fii ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy poisson yi moo ñu mujj ñi ah booy yaa am provoqué de indi woon naa jàmm suñu diggante wax dëgg yàlla mu ne ñoom ñi nga xam ne ñooy poisson yi ci santé bi ñoom dañu nekk ñi nga xam ne pour ñu mën a gën a sentir seen bopp ne mucc nañ ayib dañuy lekk ay boisson à base de plante naturelle mooy ay genre ay xeetu ay ay naan waaw dañuy naan plante plante naturel xam loo plante naturel mooy xob yi ngay gis ni ay nebleb ay nebadaay ay gàncax ay gàncax waaw ci gan xeetu gàncax yooyu ni ñuy def plante yi maanaam di def infusion wala di def tisane di ko naan nebadaay ay lay duur ay lay duur sa biir bi day tepp day teppeeral de kooku moom boo ko ña dootoo ko ñaan ay naanaa na moom baax na